li sabab bi di lenn rek muy jëf yu ñaaw yoo xam ne dañ koo jëme ci sangub sang yi di Moustapha sallallahu alayhi wa moomu nga xam ne moo taxoon Serigne Touba jël léppam jeexal ko ci moom moo waraloon ay guddeem ak i bëccëgam lépp mu jeexal ko ci moom jëloon dundam géppit jeexal ko ci di sant boroomam waaye di ko liggéeyal moom kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag bu ay kàddu jëmee ca moom walay jëf sëriñ bi dey bañ ku ko jege ak ku ko laal looloo taxoon léppam mu jaay ko jox ko ko mu sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ne samay kër gent na sama njaboot tàggoo nañ li ma ko yóbbee mooy tagg ko moom sallallahu alayhi wa sallam te li tax ma di ko taggit mooy bëgg ko rek kon defe naa moom rek daana taxaw di yëkkati aw turam daana taxaw di ko kañ daana taxaw di ko tagg ba jël léppam jox ko desewul dara jumlatu maali wal midaadu wal qalam hadiyatun lil Mustafa naa naam kon amul dara lu muy desal yonent bi la jël teg ko ci kaw ñëpp wane ni it moo féete ñépp kaw ci biir ay mbindam ak i waxam sëriñ bi nag dafa am lum ci leeral loo xam ne day wane ne euh, kilifaam gu sell googu gu tedd googu di Moustapha sallallahu alayhi wa da ko jotale woon tey jii bakkanam ak njabootam ak léppam ki nga xam ne egg na ci wax ne dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada kon day mel ni tey luy ñoŋal mbiram joxe na ca bakkanam mu jaral ko ko waaye jaral na ko joxe ak njabootam jaral na koy joxe daratam ndax moom ci boppam eggal na boppam ba wax ne dammi fidaun li xuruji dammihi wa maradi fidaun li daa i jasadi yonent bi salaa sallam bu deretam waroon a wal joxe naa sama deret man Serigne Touba mu wal waaye bu waroon a tawatit man maa koy woppal kon loolu wane na fam ci tollu ci moom ak jox ki mu ko jox boppam ci lépp jox ko dayoo bu egg ci wax ne du ma lànganoog moom mukk mu taxaw may taxaw baa mu taxaw may toog wala mu toog ma di ko tiim waaye bu doon làng maa moom bu ma ko séenee mu taxaw sama lex ci loon ndëggu dàll yàllaa koy def xaddi jaxaltuhu turaaba naxlihi yaa a laxidani bi fadlihi fonk googu ma ko fonk moo tax mu wax ne bu ma àndoon ak moom di dox moom sallallahu alayhi wa sallama ba mu ne jëyi ab tànkam jëmee ko ci ak dégg wala jiit war koo fett wala jaan war koo matt nee na du dandal dégg damay daw rek jël sama bu lex dëpp ko ca kaw dégg rasulullahi jóge ca beneen lex ba jàll kon na kooku xaddil wiqaayatu rijil mujjataba min shawkatin wa maa yudaha aqraba kon loolu day wone fa mu tegoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la defoon wéttalam ci léppam moom la defoon lépp moom la bëggoon ba nga xam ne amul dara lu muy bëgg li ñuy wax ne xol nit dana bëgg alal wala nga bëgg dara sëñ Tuubaa nag moom bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xeyla fàtte woon na lépp ngir rasulullah am na ci mag ñi ku ko doon tagg koo xam ne ba koy leeral dane ko sa xol bii de lépp faru na ci du doom du dara te li ko far mooy bëgg Mustafa sallallahu alayhi wa sallam adaaba xalbuka xubbul xibbi yaa sanada fa xobba xibbika yamxu xobbakal da loolu kenn ci mag ñu baax ñi ko toppoon moo ko doon leeral lool sëriñ bi nag dafa am fu mu bi sallallahu alayhi wa mu lu ci andee ñaari baat rek loo xam ne wane woon na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat amul kenn koo xam ne mel na ni moom wala nuuru na ko dafa wax ne muhammadun zaharat jaharan siyaadatuhu mu ne yonente bi sallallahu ak sangoom ak jiitoom ak kaweem dafa leer nañ li kulli xalqin zuhuru shamsi wal xamar ni ab jant ne fan leer bañ koo ko gis xam ne bi jant la ku gis weer xam ne lii weer la nee na noonu la ngëneelu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñe mu ne nag kon fan la nit di sikk sàkka ci ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki kawe bi yëpp te féete leen kaw mu ne mooy ki nga xam ne it ki koy natt ci kenn mooy dof bi gën gàtt am xel Sëñ Tuubaa nee na bu ñu la doon laajloo ab dof nee na ki nga xam ne day natt kenn ci yonente bi alayhi salaatu salaam jàpp ne moom la ndurool mu ne billaahi lam yaati walaysa yaati misla ibn abdillahi til ayati giñ naa ci yàlla ne mësta ñëw te du ñëw ku mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wallahi lam yaati wa laysa yaati xalqu ko misla sayidi saadaati giñ naa ci yàlla ne mës ñëw sang bu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag day wone rek fi mu ko teg ci aw melo ak sopp gi mu ko sopp mu waxit ne man shakka fi taqdimihi fa jaahilun wa xaafilun wa jaahilun wa wa zaahilun képp koo xam ne sikki sàkk na ci jiitu gi rasul lay jiitu ba kawee ñëpp fa jaahilun da ngaa réer waaye danga saggan waaye da ngaa alku waaye da ngaa yàqu man sàkk fii kaw libna abdallahi muhammadin nuru wala fallahi ku sikk sàkk ne rasulullahi gi mooy leeru bindee fi nee na kooku ab dof la man laa yara ahmadana xayra wara foofu sax fa su shaqa in qalbahuma nuwira nee na képp koo xam ne gisul jiitu rasulullahi salaahu salaam nekk gën gi mbindeef nee na ab xolam xol bu lëndëm la bu alku kon nag Serigne Touba fii la tegoon kilifaam gi te kenn ku ne ci noonu ku laaloon Serigne bi mu jaral la sa bakkan jaral la sa ndax ni def rasulullahi rek lañ ko def kon nag kilifaam tey moom la ñëpp moom lañ laal te kilifa ak mooy kilifa ñëpp ndax moom la yore yàlla jiital ndax borom bi subhanahu wa taala dafa waxoon ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal nit ñi buñ bëggee ma bëgg leen nañ la topp rek kon bëggeelu rasulullah yi ko topp gin koy topp mooy bëggeelu yàlla ci noonu kon nag képp koo xam ne ab jullit nga lii naqare na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon képp ku gis lu la naqari na nga ko saafaraa ci ñett mooy benn boo ko mënee wax na nga ko wax moo tax du def nii boo ko mënee jëf na nga ko jëf moo tax ña a jëf te bàyyi seeni alal di ko def ña jëf ca di ko xeex di ko def boo ko mënut amuloo kattan gi sa kàddu mënta jàllit mu naqar loola ci biirub xol ñett yooyu la rasulullahi waxoon noonu nag boole nañ ñett yëpp mooy naqari nañu ñu di ko wax ngir sëriñ bi naqari nañu luñ ca mën ci jëf di ko def naqari nañu lu fas ko ci boole ñaan ak di ko naqarlu kon nag loolu sëriñ bi a ngi koy wax ñëpp ñu di ko bàyyi xel xam ne rasulullahi daal mooy kenn gu mag mooy mbaar mi moom la ñu laal képp ku lib julli di wax ashhadu la laa ilaha rawatina ci weeram yi nga xam ne fu ne ña ngi ko fay tàntal ña ngay ku ne ngay woote naan mawlidu nabi nañ xam ne kooku lañ jam tey kooku lañ laal jullit bu nekk am na lu ko ca war mu jóge ko ci taxaw ko ci ndax bu ñu xooloon ne dara ña ko doon joxe booba dara taxawut ñu joxe seeni i deret tey ci la seen i ci la ñoo moo doon wal ci lislaam ci seen i la taxawee ten kuréel bu néew la ñu woon te tey jii xéewal gi nu wër wet gu ne barkeb rasulullahi moom la ko waral kon nag rasulullahi la ñu laal te ab saay-saay bu taxawee laal sa kilifa da nga koy won ne ko ki nga laal waroo ko laal te mooy sayyidil xal loolu moo nuy may jàmmi tey may na ko jàmmi ëllëg nag ndax intiqaamul ilaahi dana far dana waral di dal ci mbirum laal koog yàlla te mooy rasulullahi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu